nuyu ku ci nekk ci turam ak ci santam euh, daje bi tey daje bi tey li ko sumb ak li tax daje bi am mooy ay ndaw Sénégal euh, ay ndaw yoo xam ni bokk nañ ci football am nañ seen wàll am nañ seen baat ci football am nañ seen kàddu ci football ñoo dajaloo créer li ñuy tudd plateforme aar suñu football aar suñu football nag boo koy dégg mooy défendre les intérêts du football looloo waral tey ñu woo leen woon tey ci daje bi nii ci waxtu yi di ñëw fédération sénégalaise de football dafay dajaloo pour fal ki nga xam ni moo nar a jiite fédération sénégalaise de football ñun nag ñu gis ni que ñi nga xam ni tey dañoo bëgg jiite football sénégalais bi amatuñu baat amatuñu kàddu ci football bi ndax fukki at ak ñaar ñoo ngi nii wan nañ ñu mën ak li ñu mënul gis nañ ni football local bi doxul Sénégal ngay gis ay club amateur yu bokk ci dakaar tout une saison entière mënuñu sax football fukki match yu mat te loolu mënul nekk mënoon na yow da ngay football nga doon ab football professionnel footballeur professionnel ba pare mënoo di loolu ñëpp d'accord nañ ànd nañ ci ni minimum faa nga football ñetti fukki match te loolu amul ci football Sénégal donc mënuñoo gëm ni que tey football moo ngi dox comme ñoom ni ñu koy waxee. te seetlu nañ ni ñoom ci ab rapport bi ñu bind ne lii mooy seen bilan amul lenn lu ñu mënul bàkkoo lu dul di wax naa ni que ci fukki at ak juróom yi ñu mujj na Tëngéej FC ak li ñuy woowee génération foot génn nañ ak jaraaf safula génn nañ bokk ci ay compétition internationale ñun nag ñu gis ni que loolu yabeel weesuwul lool ndaxte boo xoolee ci football Sénégal nga gis ni fii nga xam ni mooy capital bi équipe yi nga xam ni dañoo bokk ci capitale bu ñu waree football dañuy génn sax région wu Dakar pour mën a am terrain bu ñu footballee. stade Demba Diop lañ fi amoon ab tool la mujjee doon ay jaana fay génn stade Léopold Sédar Senghor kenn mënatu faa dem stade moo amatul ci Sénégal te boo xoolee ñun gis nañ ni que maanaam loolu du bilan loolu du wax maanaam yow mënoo ne fédération nga. jumtuwaay yëpp yi nga am munoo ne terrain bu sax nit ñi mën a fubalee amul ci biir réew mi et après ngeen bëgg ni que nit ñi naan nañ leen wóoluwaat loolu lañ gis ni que loolu doxul donc football local ci boppam lañ gis ni que dafa avancé wul benn yoon fii ci senegal muy liñ premier point bi ñu bëggoon wax. deuxième point bi ñu gis ni que ñu gis ni que tey football ci boppam moo feebar football ci boppam. moo am ay laago ndax ñi ko jiite ñoo amul kàttan ñoom ñoo amul xel bu ñu mën a développer football bi. Sénégal ñaari coupe du monde ñàkk na ko ci ère Augustin Sénégal ñàkk dem participer ci ñaari coupe du monde ñàkk dem participer ci ñaari coupe d'Afrique te ñaari yoon Sénégal dem na ci ay coupe d'Afrique premier tour sax mënu faa génn donc tey mënuñoo gëm ni que waa fédération war na nañoo bàkkoo ci Sénégal li mu naan ni que eh, campagne bii mujj Sénégal dem na final. ndaxte boo xoolee ci juróom-ñaari participation Sénégal benn boobu rek la ci mën a bàkkoo benn quart de la fi dem ak bii donc loolu lañ gis ni que Sénégal waruñoo mën a natt performance fédération bi ci Augustin Senghor li mu naan le bilan de notre équipe nationale A loolu mënuñu ko nangu xel nanguwul loolu ci beneen an ñu gis ni que tey Sénégal terrain bu ñu homologué sax amul ci biir Sénégal ngay xool dëkk yi ñu wër yëpp dëkk yi ñu wër yëpp ba Mauritanie bi nga xam ne moo mujjee judd ci football tey am nañ juróomi stade ñeenti stade sahula yoo xam ni homologué nañ ko Sénégal bi muy nekk ci football di ci def ay performance boobu Mauritanie xamuñu woon sax lan mooy football lan mooy bal donc suñu dellu ginnaaw bi dafa leer nañ lu jëm ci affaire stade li nga xam ni moom moo jëm ci euh, lu jëm ci ay stade li nga xam ni moo jëm ci politique de bonne gouvernance politique de bonne gouvernance dafa amul ci fédération sénégalaise de football ñun gis nañ ni tey fédération def di ay nit yoo xam ne dañoo dajaloo di nga xam ni mooy deretu askan bi Sénégal bi nga xam ne suñuy lempo yi nga xam ne ñun ñoo ko fay Sénégal waa fédération loolu la ñuy jël di ci muucu di ci dudd te boo xoolee boo delluwee ci ginnaaw kenn ci ñoom boo kenn ci ñoom. existé wul woon avant football sénégalais bi ñoom ñëpp nag ñi nga xam ne ñoo jiite ji football bi. boo xoolee ñenn ñi nga xam ne ñi jiite fédération bi yëpp amul kenn koo xam ne équipe bi nga jiite tey moo ngi def ay performance au niveau du football local. donc ñoom seen club yi nga xam ne ñoom ñoo ko jiite sax seen club yi ñoo leen gëmul da toog di dégg ñu naan la sax ñenn ñi sax seen club sax nee nañ ñoom mandaate wuñ leen. et ñoo nekk di jiite suñu football Sénégal tey da ngay jël bon bëgguma woon waxturam muy ay ay Ablaye Sow. Abdoulaye Sow équipe bi muy jiite ni ñi sax xamuñu ko donc renouvellement fédération ba renouvellement fédération ngay dégg ñu lay wax ay AS Kaffrine il faut ñu nangu tey ni que Sénégal dafa am football Sénégal dafa am problème football Sénégal dafa am góom góomu football Sénégal mooy ñi nga xam ne ñoo ko jiite te amuñu benn xel benn xalaat boo xam ni mën nañ kaa jiite suñu football bi. Augustin Senghor ci boppam moo taxawoon jàkkaarloo ak Sénégal bi mu bëggee jiite waat fédération bi ci ñetteelu mandat. dafa tiim sénégalais jàkkaarloo ak ñoom ne leen ah man ñaari mandat yi li ma ñëkk def yëpp benn mi dama doon defaraat football Sénégal beneen bi ah lenn rek moo ñu dese mooy ñun ñëpp ñu booloo doon benn dem jëli ji Coupe d'Afrique loolu noonu mu nga xam ni moom la ñu waxoon ca 2017 bi mu bëggee fédération bi te c'est le même discours moom la taxawaat di ko waxaat donc maanaam bu ñu fekkee dañuy topp Augustin ci ay waxam ak ci ay bëgg-bëggam dina fi def 10 mandats ndax loolu loolu mu ñuy wax moom xam na ci boppam que ni ka ko def xelam ak xalaatam vision am ci football moo ko mayul moom mu mën a jël football Sénégal yóbbu ko mu développé jëlee ko fenn yóbbu ko ba feneen ba Sénégal di xalaat jël coupe d'Afrique donc tey ñun ñoo ne footballeur ci boppam wala milieu sportif xamul lan mooy wax waxet wax waxet dañ koy gis ci ay politiciens ci ay syndicalistes ci yeneen i jotaay waaye football xamul lan mooy wax waxet footballeur ci boppam wala sportif de manière générale bu fekkee dafay wax dara dafay doon loo xam ne moom daf ko gëm footballeur bu gëm boppam bu la nee ni que man coupe bi dama koy gagné xanaa mu dee rek waaye day def li mu mën yëpp pour gagné match bi. waaye nag Augustin moo ñu waxul loolu Augustin wanuñu kenn koo xam ni tey nuroo naag nit boo xam ni tey football bi am na yéene yóbbu ko ca kanam loolu lañ gis ni que moo tax tey ñu dajaloo ñun ñëpp ñooy ni que Augustin Augustin Senghor dafa doy tey mënatul jiite football Sénégal mënatul jiite football Sénégal pour plusieurs et plusieurs raisons. tey boo jëlee lu jëm ci wàllum finance ñu exploité tuuti dernier rapport financier bi nga xam ni fédération sénégalaise de football moom moo ko génnee li ñuy wax ay kàdduwu fédération sénégalaise de football la. fédération sénégalaise de football ñoom Augustin Senghor ñoo génne benn rapport financier ci rapport financier bi dañ leen ci ñoom jot nañ ci ci ay koppar lu tolloog fukk ak ñeenti milliards ñu ne ci fukk ak ñeenti milliards yooyu noonu. CAF daf cee indi wàllam mooy ci ab programme bu ñuy tuddee FIFA Forward ak li nga xam ni moo ñu yóbbu ci Coupe d'Afrique bi moo ñu yóbbuwoon ci Coupe du Monde bi recette yooyu ak li nga xam ne CAF jox nañ ci ak suñuy lempo yi nga xam ne état bi dugal loolu yëpp dafa toll ci ay fukk ak ñeenti milliards. ñu gis ne que ci fukk ak ñeenti milliards yooyu noonu ñoom Augustin Senghor ci seen rapport bi nga xam ni moom la ñu génnee deux mille vingt et rapport prévisionnel mooy lii ñëw ci atum li ñu war a def ci atum deux mille vingt et bi ñoom ñoo ni ci ñoom ñoo ne ci rapport boobu. dinañ génne lu tolloog ñaari milliards ci ay investissement ci ay projet ci ay programme pour le développement du football sénégalais tey juróom-ñaari weer après ñoom bi ñu waxee loolu ñu gis ni que tey fédération amul lenn lenn lu mu mënul lu mu mën a bàkkoo lu dul defar nañ terrain synthétique bu stade Maniang Soumaré ci deux milliards stade mañang Soumaré rek lañ ñu wax on nous parle d'un investissement bu tolloog cent vingt cinq milliards xaw ma cent soixante quinze milliards ci deux milliards yooyu. ñu waxoon ñu ni que ni que stade Demba Diop dinañ ko defaraat ci deux milliards yooyu la bokk ba léegi gisuñu ko bërki démb daal laa gis ay vidéo ci internet bi ñu gis ni que ñaari ndaraan dugg nañ biir stade Demba Diop di jël ñax yi di ko buddi maanaam xam nañ ni que Sénégal dara baaxu fi lu jëm ci infrastructure te ñoom ñoo nañu woon ni que ci rapport bii nii que dinañ defaraat stade yi que dinañ développer le football féminin gisuñu dara que dinañ def ay jéego lu jëm ci xaalis boobu noonu waaye dafa mel ni que tey xaalis boobu noonu tey daa mel ni mujjee nañ ko paacoo mujjee nañ ko séddoo maanaam mooy li may wax rek que consensus bi ci boppam moo amul en réalité consensus daf di doon loo xam ne ay nit dañoo dajale ku ñu nekk indi sa programme ñu xool lan moo gën nekk te demeewul noonu consensus bi lenn rek la mooy paacoo suñu alal bii nii mooy paacoo xaalis bi nga xam ni moo am ci fédération bi ñoo ngi gis ni que fédération bi ñi ci nekk boo génnee fukki at ci ginnaaw tekki wuñu woon dara ñoom ñëpp nag tekki wuñu woon dara du dara moo tax tey ñu mën a nekkoon ci football bi waaye gis nañ ci ku ci nekk tey ñii ñoo ngi ci seen i oto ñii ñoo ngi ci seen i 4 ñii tekki nañ ci yeneen ak yeneen te lépp jëlee wuñ ko feneen fu dul ci football sénégalais boo tax na loolu yëpp moo waral tey ñu dajawaat fii nii waaye dañuy jël ci occasion bi rendre hommage ki ñuy wax Samba Sarr bu pikin di jaale njabootu football yëpp di jaale njabootu këram mooy ñi nga xam ni ñooy njabootam ñu bokkul ak football bi di jaale waa pikin yëpp di wax ni que Samba Sarr na lu ëpp ab communiqué buy jaale Samba tey lim mu mérité woon moo ñu suspendre carrément assemblée générale bii ñu jëm Samba Sarr est président d'un club di football amateur tey renouvellement football amateur yi tey la Samba Sarr club boobu noonu dafa amoon kàddu te kàddu football kàddu FC Cosaan moo doon que ni que consensus bi ànd paccoo xaalisu askan bi la donc loolu moo nekkoon baatu Samba Sarr et Samba Sarr loolu la defendre ba bi muy génn àdduna donc tey ñoom seen ngor waroon na leen may ni que ñu arrêté lépp ba justice def liggéeyam ci lu jëm ci dossier wu Samba Sarr et ñoo ngi interpellé justice tamit di ko wax ni que deewu Samba saar mënul doon ab furaas noonu rek ñu jàll ko loolu njabootu football sénégalais yépp ñoo ko war a xeex waruñu ko accepté les responsabilité dañ ko war a situer ñu wax ñan ñooy responsable ci li jëm ci sàmba saar loolu mooy wax ji en réalité Augustin Senghor ak ñi mu àndaloon lan moo tax ñu tere sàmba saar mu dugg ci saal bi loolu mooy wax ji ak ñan ñoo ne Samba saar bu mu dugg ci saal bi ambassade dafa jot convocation bu ko permettre moom mu mën a dugg ci saar bi Samba Sarr mérité wul ñu koy tere mu dugg ci ab saal bu Pikine donc ñoo ngi jaale njaboot fa di wax waa Pikine tamit que ni ci li ñu nekk ñoo ngi ci ak ñoom. pour que suba ci midi ñu dajee fi ñuy wax centre international de conférence Abdou Diouf bu jam ñaajo lan moo tax ñu war a daje foofu noonu waru waruñoo nangu li nga xam ni am na fi mu fiy desaat pour ñeenti at. waruñu kaa nangu te duñ ko seetaan mënuñu seetaan lu mel noonu mënuñoo nangu ñuy continuer di jël suñu alal di ci tëdd ñun ñooy moom alal boobu noonu suñuy lempolo ñun ñoo ko moom donc waruñoo accepter que ni que ay nit benn groupe ñeent juróomi nit te football bi en otage duñ ko ak duñ ko nangu duñ ko nangu duñ ko accepter. muy ci benn point bu ñu bëggoon ñoo ngi leen di woo ñoom ñëpp ñu daje suba pour que Augustin Senghor mu retirer candidature am lu jëm ci quatrième mandat. dafa doy soxlaatuñu Augustin Senghor mu jiite football sénégalais ñoo ngi exiger tamit que justice taxaw ci dossier wu Samba sambasaar Samba Sarr waruñoo nangu lii Samba Sarr daf ñoo xeexal dafa xeexal football de manière générale dafa xeexal peuple sénégalais donc waruñoo nangu Samba Sarr mu nil noonu ñoo ngi wax tamit que ni ko dañoo bëgg élection yi mu am en toute transparence sans Augustin Senghor Augustin Senghor bokkul ci élection yi moo waxoon ni que bokkul donc loolu la ñuy wax ñoo ngi exiger tamit que ni que football ñu jox ko ñu ko mën a téye ñu mën a yor football bi le football dafa soxla ay nit yu bees ay ndaw yu jël football bi gérer ko teg ko ci ay loxo yu mën a jëm ci kanam jëli li nga xam ni moom la bëgg ñun ñëpp moom la ñuy woon ñëpp mooy Coupe d'Afrique des Nations en tout cas loolu moo nekkoon kàddu yi nga xam ne moom la amoon tey ñoo ngi rafetlu lool tamit seen présence bi di leen remercier.